salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant man maa ngi tudd El Hadj Birane Ndiaye dëkk fii route Dakar 2 euh, ñu koy wax Thiès Azur comme soo mbokk ndaataay ni ñu ko waxee rek cest à lii nii ñu fiy def du intérêt quartier bi du intérêt Thiès intere Sénégal la te Sénégal dañoo tool foo xam ne ci développement lañ wax comme donc buñ gisee loo xam ne dañ ko ñëw ne dañ koy def Thiès. ñun ay ndaw duñ taxaw opposé wu ni lii du fi am ñun ànd nañ ci projet bi tey ak suba ak ginnaaw suba amul fii benn ndaw booy consulter bu taxaw ne àndu ci ñay wax nag nekk seen ruq di wax loolu ñooñu la concerné mais ñun ñu nga xam ne ñoo nekk ci fii ci quartier bi di jug ànd doon benn bopp doon nañ benn bopp te kenn mënuñoo séparer ñun ñëpp d'accord nañ ci projet bi intérêt Thiès la te donc Thiès lu mel nii bu fi amee ñëpp dañ ciy jariñu comme donc projet bi ànd nañ ci bu baax a baax a baax a baax loolu laa waa Douda Dakar plus particulièrement waa Douda dakaar ànd nañ ci bu baax a baax a baax a baax waaw loolu laa amoon lu ma ci wax dafa mel ni espace bii rek ngeen amoon comme espace loisir rek yooyu tey jii bu indee ci tabax li yow yaakaaroo dina indi gàllankoor déedéet ñun am nañ ay espace yu bari am nañ espace yu bari ci biir boo fi duggee fii am nañ lépp xam nga tey nit ki bala ngay toog di dallu am loo yor sa poche boo amul loo yor sa poche jarul ngay dem di dallu lii développement la donte benn nit bu dëkk ba R100 dafay ñëw di liggéey loolu cees la intérêt Thiès la mais du kii konk comme donc lépp li nga xam ne intérêt Thiès la ñun dañuy taxaw défendre ko waaw man mii di wax sama compétence du fii ñii ñëpp di wax seen compétence du fii comme donc ñun lii yëkkatiwuñu waaye intérêt Thiès bu taxawee ah dañuy jël intérêt personnel yëpp teg ko ci suuf loolu lañ ne woon leen ko wax ngeen dégg ko. jërëjëf merci beaucoup. donc euh, man Jean-Christophe laa tudd euh, je suis éducateur de foot voilà donc en quelque sorte dama fi comme teewal ko la jeunesse waaw côté sport donc li ñu ci boole ñun mooy fii terrain football la woon mais bu mu bu ñuy démarrer terrain bi dañ ko abandonné woon parce que y pas de sécurité il y personne qui est venu pour nous aider pour jàppale ñu ci. ñu dem ba ci biir ne gis ne am na insécurité am na danger xale yi oto yooyu on s'est rendu vers l'école dañ ñu bari mujjee dem ba ci école bi maintenant li fi am te sama naataango bi wax ko site bi li ñu fiy def muy centre de développement technique pour oto yi maanaam pour oto yi ñu leen di xool di leen di gëstu wala ñuy changer parc automobile Thiès wala Sénégal kooku suñ ko amee ci suñu biir quartier ñun duñ ko bañ waaw parce que njëriñ bëri mu ngi ci te njëriñ bi du pour waa quartier bi rek pour Thiès yëpp waaw c'est national ñëpp ko bokk il faut mu leer du waa quartier bi rek ñëpp a ko bokk Thiès yëpp fii ba Saint-Louis fii ba Tamba ñëpp a bokk si bi si bii boo xoolee defe su ma juumul bii mooy deuxième au Sénégal waaw lu mel ni su fi amee ñun dañ ko war a bañ parce que dafa am ñoo xam ne dañ ko bëgg mu def moomeel pour tabax fi immeuble wala pour def leneen maanaam bu ñu laajtee la ngeen fi bëgg ñu ne jardin la ñuy def ah pourtant de lii boo leen ko wanee xool leen fii ba fële dañ ko joxe kenn waxu ci kenn mësu ci wax waaw bii nekk fii rek parce que am na ñu mu jaakaar lool ñu ne non du fi amee ñun dañu am fu ñu war a def suñuy jardin loolu du nekk dañuy jël ay xale yoo xam ne dëkkuñu ci gox bi ñoom seen gox li fa am waxuñu ko li am fii ñu ñëw ne non non du waru fi amee. mooy ñu jóge ay grand standing jógee côté yëpp ñooy ay ndaw lañ fa jël ndaw yooyu ñu ne ñoom ñoo dëkk fii mais dëkkuñu fi. quartier bi nu mu tudd. fii fii route de Dakar 2 la tudd ñu koy wax route de Dakar 2 route de Dakar 2 moom ngeen gis sax bu leen kenn bett am na ñoo xam ne ñu ngi jàkkaarloo ñu ngi filmé comme xale bi ngeen gis suñu ginnaaw dañ ko yónni pour mu ñëw enregistré si ñuy opposé wu la bokk ñuy jàkkaarloo ñun il faut ñu dem au droit au but parce que pour intérêt benn nit ñu intérêt ñëpp la ñu wax Sénégal yëpp intérêt Sénégal yëpp la ñu wax waaw si bii pour loolu la il faut waa koñ bi xam ne du pour ñun rek pour Sénégal yëpp la pour Thiès yëpp la intérêt bi ci nekk ñun ñëpp lay jëriñ waaw loolu kese la du leneen taxawuñu fi nag pour intérêt crypto personnel parce que site bi Sénégal bu naree liggéey l' état doit travailler avec du privé bu fekkee ne loolu moo leen jaaxal état suy liggéey dafay yebal ñoo xam ne yor nañ seen xaalis seen poste mun a tabax jox leen chantier yi ñu liggéey ko pour ñu mun a développer bu leen loolu jaaxal yëfu état la teg na ko ci loxo privé privé moo koy yëkkati jeex na bañ defee suñu enquête doomu réew mi lañ ko jox doomu Thiès lañ ko jox ñu ànd ci lool foofu laa mun a yem loolu kese la man Senghor laa sant <laughs> <laughs> jërëjëf loolu rek la amul leneen route de Dakar la tudd route de Dakar plus connue sous le nom de Thiès Azur. ok je me nomme monsieur Bassirou Traoré. Je monsieur Bassirou Traoré je suis un résident du quartier j'habite ici je fais partie des premiers habitants du lieu. Apparemment vous ok c'est une petite déclaration. devrait faire pour un peu éclairer la lanterne de l'opinion sénégal, sénégalaise du mois Ok. Je disais bonsoir à toutes et à tous. Ce groupe constitué n'est ni une association, ni un GIE, mais la rencontre de volontaires du quartier, mûs par l'esprit de développement économique, culturel et sportif. Nous venons par ce point de presse éclairer la lanterne des Sénégalais sur la situation qui prévaut par rapport à la construction du centre de contrôle technique des véhicules sur le dit site. Nous vous rappelons que ce site attribué est la propriété exclusive du quartier route de Dakar. La population de grand standing n'y a aucun droit, contrairement au dire de certaines personnes. Rappelons, et c'est ce qui est important, que les populations de route de Dakar sont favorables à l'implantation du projet sur ce site. Toutes ces manipulations à faire croire au refus des populations de route de Dakar de l'implantation du projet sur le site ne découlent que de personnes mues par des intérêts crypto-personnels et de surcroît des non-résidents. À qui nous disons où étaient-ils quand toute cette bande de terre était attribuée et construite sous leurs yeux Et pourquoi aujourd'hui ces non-résidents de route de Dakar ont-ils le mot pour nous représenter Nous voulons le développement de la cité du rail et nous en sommes conscients. Une ville nouvelle, de nouveaux projets, d'autres ambitions et chacun y gagne. Nous vous remercions.